ay ci jërëjëf euh, jërë ngeen jëf euh, Abdoulaye Diop euh, jërëjëf Passepartout Yacine Pouy digital jërëjëf Mame Dieye jërë ngeen jëf auditeurs yi nga xam ne ñu ngi déglu RFM 94 point 0 internet yi nga xam ni ñu ngi ñuy bàyyi xel suñu site 3w rfm point sn wala suñu page Facebook RFM l'officiel ñu ngi leen di kontaane bu baax seen journal de faits divers xalaas ci beneen numéro Mamadou Ndoye Bane ak Mamadou Mohamed Ndiaye bàyyi leen di ma laaj lan moo tax ñëwoo vendredi li may enregistré mercredi sodi ak vendredi moo may teree ñëw vendredi bu ma kenn taajate réunion wala nga may audio naan ma loolu tax a ñëw foofu un point c'est tout. salaamaaleykum koy no no non non ñi may woo vendredi bu ne ak di ma audio. Ah, waaw. maa ngi lay siyaar baax yow sa yoon nekku ci. waaw man sama yoon nekku ci yow je te respecte waaw. Ah. parce que yow nit nga ku ma fonk ku ma foo ma teg mais di ma ah. woo di ma harcelé ak di ma yuuxu. yooyu day jeex. waaw dafa war a waaw jaajëf ñu ngi lay siyaar di siyaar Ndiaye. Euh, di jaar ñiy déglu ñëpp di leen ñaanal jàmm rek bu baax a baax yàlla na jàmm sax ci réew mi kër yëpp am jàmm. Hmm. waaw ñu ñëpp am jàmm njaay. amiin waaw amiin. Hmm. <laughs> maa ngi lay siyaar. maa ngi delloo siyaar bu baax Ababacar. Hmm. Euh, maa ngi nuyu Ndoye Bane maa ngi nuyu waa senegal gi yépp di siyaar bëgg arafto day maanu ñaay partenaires yi ñu àndal. sant yàlla sant yàlla ba nga xam ne nit li muy xalaat. Mm. gémmiñum du ko génne. dëgg la yàlla yàlla suturaal la ni ma eh, suturaale. instant may xalaat dëgg dëgg. yàlla mm. na yàlla baax na. su ma la ko waxoon dëgg dëgg. <laughs> yàlla baax na dëgg raawut de. waaye yëmbal dinañ révolté ko. <laughs> déet waay. partenaires yi. Mm. yaa koy junju. Mm-hmm. dañu koy doore ak établissement waa kër sëriñ tubaab Fall et mooy ñi nga xamante ne ji ñoo ñu andil gaamu vite fait. gàmmu vite fait xam nga maa ngi leen di wax ne la dafa am cuuraayu bant boo xam ne dafay dàq yoo. Mm-hmm. am pompe boo xam ne yoo ak mbóot ak weñ lépp lay dàq. Mm-hmm. am crème boo xam ne da nga koy diw ci sa yaram ngir foo tëdd di fiixlu ay yoo duñ la jege. Mm-hmm. yooyu moo tax ma tuddee ko gaamu vite fait lépp rek mën ci yoo mën ci mbóot mën ci weñ. établissement waa kër Serigne Touba Fall et ñoo ko indi 77 555 11 11 wala 77 696 34 67 wala 77 441 06 38. ngir ay leeral yu ngeen ci yittewoo wala bu fekkente ne da ngeen ci bëgg def ay commande ak lu mu di doon woo leen établissement waa kër sëriñ Touba Fall et frère euh, bu ñu ca jógee gërëm beneen partenaire buy ànd ak ñun mu di Green Card Sénégal nga xam ne dañoo ñëw di may nit ñi seen chance ngir ñuy mën a bokk ci ay loterie tirage au sort mhm. bu ñu amee chance su gagné Green Card mën a dem tukki Amérique États-Unis nekk fa en tout légalité di dem ak a ñëw mhm. kenn du leen toppee jafe-jafe yi këyit te it euh, ñu bari ñoo xamante ne yàlla def na seen wërsëg fii la jaare ngir ñu am Green Card dix ans ngi ne ñu di ci yëngu ñu dem nag ba fu nekk ci dëkk bi ñu def fay stand ngir bëgg nit ñi mën di gën a tenter seen chance euh, am nañu stand monument obélisque am ko rond point JVC am ko rond point Abbas Ndao 77 027 22 22 77 027 22 22 ma ngeen di àndee ak ñoom ngir am yeneen i détails ci seen seen liggéey ñoom waa Green Card Sénégal. Mm-hmm. ci am na solo am na solo ñooy partenaires yi nga xam ne ñoom la ñuy àndal. ci xalaas gi baan xalaas bi njëkk lu mu wax nga ni. Mm-hmm. Euh, xalaas bi njëkk mooy xalaas lan nga daan wax sax. express express. samedi yu paase euh, rek sama gars yi takk der yi. Mhm. police surtout police su jëppal. Euh, da nekkoon ci opération bu am solo ba jàpp ay vingt cinq jeunes yoo xam ni dañ doon yëfi fi yëfi góor jigéen doon takkante ka anniversaire ci benn. benn appartement. Hmm, encore fële ca ca ca Mermoz. vingt cinq personnes kenn ki moo daw bo euh, ki nga xam ne sax yaakaar nañ moom mooy seen boos mooy tête de file bi. Hmm. ñu ngi njortu nañ ni. Hmm. ne woon loolu njortu nañ ni. c'est un médecin sekk la sant. Mm-hmm. da moo daw. bàyyi fa kar d'identité mi kii bagaasam. Mm-hmm. vingt quatre yi jàpp nañ leen ña nga foofu xam naa ni tey leneen leen defeere ñu fekk leen ñu simeeku sol seen i caleçon di def lu leen neex <laughs> ca néeg ba ca benn néeg ba moom kay dama li lañ fa fekk. fekk mm-hmm. nañ ca ca ca bañ leen jàppe fekk nañ ci ñoom vingt cinq euh, produits lubrifiants yooyu fekk ca fekk fa. ay test sida test sida yoo xam dafa nekk xam nga loolu booy yi mun ñu ko génne foofu ñu jëlee foofu test man. fait résultat test wala ay matériel pour def test test maanaam li ñuy testé pour. nit ku hmm, am sida fekk fa ay préservatif fekk fa ay paquet lingette lingette yi jigéen ñi di utiliser fekk fa ay bague alliance. <laughs> ah fekk fa euh, bague alliance. fekk fa tamit ay ay butéelu shampoing yooyu champion damay bañ a euh, yi nii damay bañ wax marque bi fekk fa ay paquet ay pose cils yi nii jigéen ñi di di di def ay ay ay boîte rosa yi jigéen ñi di def ak ay collier yooyu ak ay gel gel yoo xam ni moom la jigéen ñi di utiliser ak euh, ay butéelu parfum maanaam ay bagaasu góor jigéen daal lañu fekk yu baree bari ci ay ci ay saako san ñu ngi leen jàppee Mermoz te li ci gën a yéeme hmm? njaay xam naa ne dinañ leen defeere tey li ci gën a yéeme xale yi ay xale yi tuuti tuuti tuuti tuuti. ñaata at. xool lii. ñii ñoo nekk nii. ñoo nekk nii gis nga leen nii. man foo jëlee image yi. ah man la. Ah, alma ma wan la. déedéet bul tëj non dama lu ma déglu ma ma xam naa li joxe xam naa li ma la moo tax ma ne la gis nga lii nii da nga supprimer kii ko supprimer alma wan la rek dimbali ko dimbale ma waxuma nga envoyé ko sa bopp de. Serigne Saliou ma ko envoyé. Ah, ok baax na man soxla wu ko de man aw ci benn soxla. ñooñu yaasini laa koy xooy pour ñu xam ne. image yaa ngi nii non non ñu digital yi pour ñu xam ne image yaa ngi nii. mais foofu lañ cay yem. lu mat vingt cinq xale. Mhm. bon kenn ki moo rëcc. kenn ki daal njort nañ parce que carte d'identité gis ngeen seen seen seen seen coob yi nga xam ni préparé wu gis ngeen ñii gis ngeen mariage dañ doon def mooy waaw xale yi ki ci mën naa ni ki ci mag quatre-vingt-quatre xaw ma vingt cinq la judd ay booy yu ndaw yu ndaw a ndaw trente ans la am ak voilà mais seize ans sax am na xale seize ans sax am na quatre vingt waaw bon kenn ci kenn moo ci war a judd loolu mais ñi ci des ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ay ay ay xale lañu waaye am daal ku ci sant ki ci sant moo daw te kooku lañ njort ni c'est un médecin njort samay wax nag day leer njort nañ ni c'est un médecin moom moo daw te mi ngi dëkk fii ci diggante Rufisque ak Bargny. yaakaar naa ni ñun euh, yàlla suñu borom. dimbali mariage góor jigéen nu mu war a demee. yàlla na ma ump yàlla ma ump. c'est que je peux pas nu mu war a demee. man dama ca xam. vingt cinq personnes. vingt cinq góor tëju fenn amul benn jigéen. dëkk bi yàqu na. yàlla na yàlla sax ñooñu man su su ma ñun mucc nañ ñun yàlla dimbal nañ ci éducation ak fulla ak am loo gëm ak ñàkk complexe ba yàlla muccal la ci yëfi ñàkk fayda yu bari yàlla na yàlla sàmmal ñu sunu ay doom. voilà amin looloo jaralaan parce que man man soo ma moomoon réew mi. genre yi nii da nga leen dajale stade taal leen benn yoon parce que dëkk bi ci boppam man mu je pas comprendre ay xale yu ndaw xale yu góor yàlla def la góor ak góor ni mu neexe yow nga ne yow yow tot nga bëgg a doon waa yow Ndiaye bu weesoo ban <laughs> ah ban non non non c'est gis nga nag affaire dañ koy gis nga Sénégal li ñuy laam-laamee li ñuy li ñuy raay ci affaire góor jigéen dafa ëpp déedéet ku ci nekk boo deewee sa bàmmeel lañ fay denc mhm. ku ci nekk bàyyi ko ak conscience non non non am na loo xam ne yàq sa am na loo xam ni balaa ngay dem ci yàlla di dee ba yegg ci yàlla dafa xaw a foofu sax dafa xaw a sori gis nga njaay nit ñi dañuy nekk ci vie bi di dox dañuy nekk ci town bi di dox nga gis ñoo xam ne ils sont conscients seen conscience dafa tranquille ba lu leen neex def lu leen neex wax fu leen neex dem am na ñoo xam ne bu ñu rombee ñaari nit ñu taxaw di waxtaan sax dootuñu nekkati. donc nit war na éviter duggal boppam ci situation yooyu moo lay yóbbu ne ñu lay gis naan kii lan moo ko dal wala dara feebaroo dara jot la mais conscience goo xam ne da ngay tëdd ñëpp di tëdd nga nelaw yow nga tëdd doo nelaw loolu rek dafa metti ba yenn yu sew yeeg yu salte yi boo ci duggee ci yooyu la lay puus ci yooyu. moo taxit. dama ne diite yi moom c'est c'est extraordinaire te ñoo xam nii mënuñu laa romb ba ba nga xam ne ñii ay góor jigéen lañu soo leen gisee mënoo leen mënu mënu mënu mënoo koo xam. suñu ñëpp dañoo nekk en danger suñu njaboot yi dañu nekk en danger te xoole ñëpp presque mën nañ ni suñu dee vingt quatre yi ñu jàpp yëpp mën naa ni vingt yi ci banlieue bi leen dëkk ci banlieue bi leen dëkk ñoom ñëpp banlieue bi dañ ko daan xool di fa gis ay jàmbaar mhm. ñoom ñëpp ay bañkat c'est c'est man triste man dama mais xam nga aussi tamit ñi yàq nit ñi dañuy yor seen alal dem seet ñi nga xam ne amatuñu espoir mhm. seen dund metti na xonet bi compliqué na dese wuñu ngor ñooñu la ñuy récupérer et généralement ñooñu ñi nga fi nga leen di fekk mooy ci ci ci ci zone yu mel ne suñu zone yi mais sañu bi ma ni maçon yaa ngi fi menuisier yaa ngi fi mu metti ci ñoom ñuy xëy di manee baru di mos kenn ñemewu leen a gis leen influencé ci yëfu ñàkk fayda yooyu la wax dese ko nangoor ah desewul ngor moom jaay jaay en tout cas maa ngi ñu ngi félicité commissaire euh, commissaire Ka ak ay omam euh, waa commissariat bu jëppal euh, te commissariat yëpp sax Euh, temps yi gis na ni nit ñuy baree ci tali bi nekk ci biir quartier yi di dugg ko génn di lijjanti yu mel nii waaye man daal xam naa ne waroon na. pourquoi vous dites toujours diw et ses hommes. et ses. commissaire tel et ses hommes. tax ngeen wax loolu. dans l'armée dañ lay jàngal quelqu'un déconne tout le monde paye. fi ñëpp ñoo ñëpp. non non non bi lay wax lu tax ngeen di wax. diw et ses hommes parce que du moom dong. mais mooy nekk ci kanam commissaire bi kese mënul jàpp kenn. mais mooy nekk ci kanam. commissaire bi nitam. alaaj asan bi tudd kan ci. commissaire bi est-ce que mooy sa sa waay sa mbokk mi maa mooy sa mbokk mi ki nekk central nu mu tudd. kan Dramé. yaa ngi leen nuyu. maa ngi koy moom sama xarit la moom. Hmm, man maa ngi koy nuyu. waaw man maa ngi nuyu directeur police. ayca baax nañu dem ci classe bi euh, yàlla xiir ñu ci ñuy def lu baax. mariage am na mariage yi bari yi temps yi am ni yi am am na koo xam ne joxe nu turam ni noonu lu tudd waaye tuddul noonu de <laughs> man nag du ma tudd benn mariage du ma tudd tudduma benn mariage bu kenn ndooy baan mariage nag waaye daal ñi takk temps yi am na ci koo xam ne tudd ñu jox les journaux bi ni noonu la tudd tudd noonu mbanjik la tudd mbanjik ku góor ku góor ki ci boppam waaw mbajik la tudd maam ki ñu takk na jabar waaw ki takk na jabar joxe xaalis bari mbajik la tudd mbajik mooy turam dëggantaan baat bi ngay indi man daal man daal fa laa baat bi ngay indi affaire mariage yooyu da nga fekk ma maanu. mais lii mañik mañik njaay ban vendredi bii passé abaa nekku foon ñu ngi doon wax paa bi nga xam ne moo dugg ci biir kër ga takk meer ba di dawal oto paa ba di noos ci alal di noos ci alal ja ba doom ji fiir fi doom ji fiir fippu carrément ñëw wax ci rajo bi. man dama laa bëgg teral. man lan laa <laughs> laa lay may. mais mais <laughs> xam dina la neex. sama wayo nu mu tuddati. wayo nu mu tuddati. wax na ko bëgg. Ah. <laughs> xanaa xamuñ man Ndoye Bane su ma amul woon Sénégal gaa yi dañ may jëli de. Eh, kan ci man su ma dëkkoon Gambie wala Mauritanie foo jaar gars yi jël. Ah, xam ni baa na fi toog ne yow yaa encombré Sénégal mariage yi am ci Sénégal nekku ci. waaw ah, joxe te du moom moo ma ci ma ci dugal. <laughs> dama ni leen yàlla na leen mais terul nag yàlla na leen yàlla jàppale ci mariage yi ñu takk yëpp wax dëgg yàlla yàlla bu ca benn tas yàlla na bokk ci mariage yi gën ci réew mi waaye kenn ka tur wam joxe ni noonu la tudd tudd noonu mañik la tudd Mbagnick nañ wax Mbaye amul solo. waaw sooy Ndiaye di nga dem di xamante ne ji abaa ma ma ko doon nettali ki ñu doon laaj si xarit bi nu mu tudd man man Rijal laa ko xamee. waaw ñaari Baye Fall yi la. Rijal amul tur amul solo. samay waay lañ de en tout cas paa bi paa bi paa bi ci boppam ba xalaas bi jàllee. maire ba xàmmee na doom ji. ërtal doom ji. Mhm. paa bi dugg ci. Mhm. saaga doom ji doom ji fayu. Hmm? kon yegg na foofu déglu. keroog euh, bi ma introduit ma ñëw foofu noonu. bay suy la keroog sama yaay. daf ma xàmmee bi ma waxee wax jooju daf ma xàmmee. bi xalaat bi jàllee. waaw bi ma xàmmee xa bi xalaat bi jàllee daf ma xàmmee tax mu dikk expliqué noonu ñoom ñoo fa wax sama jëkkëru yaay bi. Mhm. moom dafa mujj mer. waaw xale quoi ni moom léegi man damay génn kër gi maa mu génn kër gi parce que sama yaay indi foofu coow lu bari loo xamante ne nii indi na ma ci tool coow lu méttee méttee méttee méttee léegi man ma ne ko dama mujj fit parce que mosuma wax ak moom. Mhm. mais dama mujj fit waaw waxam ni ko man xaalis su ma génn kër kay néew mooy génn mais man moom du ma génn kër gi. xaw ma kenn kuy génn nag mais man du ma génn kër gi sama jotoo ma ndey ma mm-hmm. mujj fay coow lu métti sax ma ma fay ci la sama yaay sooge commencé di ma tuur ma mm-hmm. dugg ci quoi te man waaw saaga ma fay man sama yaay bi may dóor sax fayu ma tudd ma ko dóor na ma bàyyi ko mu dóor ba mais kee moom dafa saaga ma fay parce que du ma ko may moom mm-hmm. mais sama yaay sama kilifa la mais moom kee moom daf ma saaga ma fayu attaqué ko waaw te maa ko du saaga kóole matul kilifa ndax bu ko matan voilà matan kilifa du ma saaga du ma attaque muur boobu mooy baan loolu baan sama yaay da nga jàpp ne paa bi da sama yaay so précom ko liggéey daf ko jëf mhm. ko mhm. mhm. wax man moom li leer la man lii mënte ne sama yaay daawul def lii ma la ma tée na métti mooy muy génn ko bi taal sa oto bi yóbbu ko man ko boo amoon jom sama oto papa doo ko dawal

moom la beneen paa ñëw. wa takk yaay ji waaw. léegi problème am mu ne ko sa doom day génn kër gi wala. problème bi mooy xale bi dafa ñëw fii dénoncé lu ñu def yaayam maanaam yaayam dafa ànd ak paa bi ñu jël alal ji fi seen bàyyi bàyyi woon di ko noncé femme bi ñeenteel la loolu la booy bi doon dénoncé léegi na fi mujj mooy jëkkëru yaay ji nee na xale bi day génn baa moom mu génn. moo ñàkk jom. te moo ñàkk jom. moom kër yaay ji. <laughs> loolu dama wax ci jeex. moo ñàkk jom li leen xam nga conseil la doon laaj. Mhm. Ndiaye déglul. jigéen ji nga xam ne borom këram dafa génn àdduna araamul ci jigéen jooju nag mu am beneen boroom kër waaye nag bu fekkente ne moom jigéen jooju dafa am ak njaboot goo xam ne kenn ku ci nekk tollu nga ci yor kër borom kër ba muy amaat nag borom kër bu ñu war a tànn la ci ay jikko day xam waxtu wi muy dox day def yëfi mag day yiw day am tolérance day am yare ci teggin ba noppi di yare doomam yooyu nga xam ne ñooy doomi jiitleem yooyu mën nañ koo bëgg waaye mën nañ koo bëgg ba jàppee ko ne seen baay ngir ci defin ak doxalin mooy lan mooy lépp lu ñu war a gis ci kaw lu yàlla lu leen yàlla nëbbuloo mook soxna si dañ koy nëbbu ba wéet lépp lu ñu war a def ci biti ñu def ko ak yiw ba noppi wane kilifteef wane yar bu ma sëkk ànd gii ma ànd ak seen yaay benn intérêt lalu ko danoo ànd rek te yàlla rek tax ndax ñàkk jom mante weesu di takk jigéen ngir mu yor la léegi nag ki nga xam ne dafa takk jigéen ngir jigéen ji yor ko kooku moom manta yor jigéen ji yor bu yàlla tax ñoom ñi nga xam ne ñooy doom yi nanu xam ne loolu seen yaay def nag du lu xaraam nag seen yaay am na droit bu seen baay génnee àdduna mu am beneen borom kër waaye seen yaay it na xam ne maanaam na xàmme borom kër bi koy yor te yàlla tax ak borom kër bi nga xam ne day ñëw lekk alalam ba noppi teqaleku ak ak njabootam te li ëpp ci borom kër yi léegi moom boo yoree dara bu fi sa waajur bu sa waajur faatoo bàyyi fii oto ak i kër bàyyi fii place bàyyi fi xaalis am na góor ñu ñàkk jom ñoo xam ne danañ la jéem a genn batu dugg ci sa biir tàqale la ak say doom lekk sa alal ñenn ñi sax dañ lay yóbbu ci ay sëriñ ba tàqale la ak sa njaboot maanaam dugal la ci gaalug wala nga teere ji kaana waaye doom yitim nañu xam ne koo ki nga xam ne moo yor seen waajur su fekkee ne li ko lislaam sant lépp ci ku war a yor soxna mu ngi ci moom yiw na am na am nag dal am na yar am nay teggin am na sutura maanaam jàppe na leen ne seen doom maanaam te gis nañu àndewut ak seen yaay benn intérêt te doonut baadoo la ndax baadoo la mooy takk koo xam ne daa yor doom yu mag yi jëmm nga gàddu sa mbuus tàkkusaan di langar langari di dikk te ñoom ñu yor seeni soxna ci kër wala ngeen nekk ci seenu biiru néeg di xàqataay ak a dañu yor kilifa gu baax gu am bañum rus gu man a sàmm ak njaboot goo xam ne gu diiñ ba jóge fi ñu wut gone gu tuuti di feeñal ak mbaax ci kaw nëbbu ak wuyu ci biir di nekk yow dina def loo xam ne mag mosula koo def di la wax loo xam ne mag mosula koo wax dugal la ci gaam boo xam ne da nga naan lii de maa ngi doogu dund àjjana fekk ne ci ay wuyu rek nga dajeel yu lay foyee ak bëgg la tàqaleeg say doom loolu lu mat a bàyyi xel la nanu delloo siwaat sunu xel muy nday ji muy doom yi doom yi xam leen ne seen yaay loolu mu def du lu xaraam waaye yow mii seen yaay tim na nga xam ne boo amee ak njaboot gu mag la la war mooy waroo leen a yóbbe gàcca waroo leen a maanaam boole koo xam ne day foye seen alal waroo leen maanaam andil ci kër gi ab wëy yu boo xam ne liñ gis mu di ko def ci biir kër gi maanaam seen bàyyi fukki xelam xalaatu ko woon waaw parce que nit bu fekkee ne da nekk ak nit ku yiw di ku baax di ku am ngor di ku am bañum rus ba wan la ginnaaw nga sàggi ab sagam wili pandi ay sekkereem maanaam tas ak njabootam indi fa saay-saay boo xam ne doole képp la yor ñenn ñi dañ ñenn ñi dañ lay liggéey ñenn ñi di ay fenkat ñenn ñi di trian ñen ñi di dóorkat bëgg àkki moo sa alal ak sa alali doom yóbbul ciy sëriñ jaxasal ak sa njaboot soxna soo see ci boppam doonul soxna soo xam ne su mat soxna la waaye li may digal doom yi bu mu yàgg mukk mukk mukk mukk ba ngeen wax ko dara ndax ndey dafa bëri doole ci doom bu ngeen ko mënee bàyyi moom góor ga moom yéen génn leen ci moom xam ne seen yaay dafa dajeeg wëyu yàlla natt na ko mu dajeeg wëyu daal te bu ko yàlla na nattoo wëyu ba jël ab xolam nag lu ngeen ci mën dara kon yéen góor googee moom yéen wan leen ko ginnaaw waaye seen nday moom lu ngeen man rafetal leen seen digganteeg moom waaye yow it soxna si xalaatal bis bu la góor googu nga nekkal di sànni ca biti fekk nga tàggoog sa fekk lekk na sa alal naan na sa yuur tas na sa njaboot wa nga perte 10 perte la sec juróom-ñaari bàkkaar yi gën a mag yàlla daf caa boole lekk alali jirim jirim rawatina jirim yu xamagul dara seen alal kenn du ko lekk xalaas hmm? dégg loolu kii kay dafa résumé lépp mm-hmm. kii résumé lépp lépp résumé lépp voilà donc yëf yi jàll am na lu ci abal laal na gone mm-hmm. laal meer yi laal paa loolu moo moo ci am solo bu weesoo lii kii wax mm-hmm. abal loo wax sànq ma ni ah. na xale yi am yar maire yi am yàlla. Mhm. bàyyee ñu delloo ci seen xel ci yàlla te xam ni yàgg yàgg dañuy dem. Mhm. paa yi ñëw di nekk ci maire yeeg di jur yeneen doom yoo xam duñ seen i doom. Mhm. nanu am jom am yërmande. très important non non c'est que kër goo xam ne tabaxul waaw maire yi am yàlla. Mm. ñii ñëw am jom. am jom kër goo tabaxul soo fay fanaan sax fanaan si da am noo raam noo fa fanaane. <laughs> kër gu sa morom tabax. nooy fanaan si kër kër kër non man moom sama leen laa bëgg a man toujours ma wax leen ko at mu jot ma wax man su ma deewoon ku ma doon ci maribaan barke Serigne Touba di nga gént ba daw <laughs> chaque jour di ma gént ma naan la door sors de la maison. ici di la xulli samay bët da daw di génn sors de ma maison <laughs> koy wër. <laughs> ndeysaan oh, non Las Vegas laa bëgg a dem quoi barke Rasulullah looy def Las Vegas yow. man daal Viviane Chidid lu ma ko bëggoon bëgg naa ko. nit da ngay wane na ni Youssou Ndour a ko yar. foofu laa mën a yem. mais nag dama lay wax dara de. Las Vegas ñi organisé ak fa nekk ñëpp samay xarit lan de. bu euh, nga def ci man de man de ni man Viviane lay wër man. samay xarit dafa nekk am naa ni Viviane lay wër nit da ngay diñ ba keroog ngay attention samay xarit ñoo nekk Las Vegas foofu laa yem ak man daal tudduma kenn un point c'est tout mais lu rek. yow moom benn euh, waaye fa nekk daal di maye xaalis di ko sant suuf nit ñi di ko ramaas di ko for naan la baleel xoma ku ci nekk ma ni ku nekk yaa moom yow yow di ko def yow soo demee dina la def loolu nga nangu lu ma dul def rek du ma ni ki koy def li muy def ba baaxul loolu du ma ko def benn déedéet du ma ko accepté ah. mais ki koy def ah. moo sentir xaalisam ñam koy defal ñooñu booy booy critiquer man ki koy def xawma ko ñii fort ngay critiqué waaw ñii fort laay man ki ki kay ki kay ay magum jëm yu sëgg di fort dégg man déglu ma déglu ma man kiy joxe kiy joxe xaalis bi xawuma ko xawuma sax turam la mais man man ku baax la ku mën lu baax doon fort xaalis bi bala ñoo xam tolluwaay liñ def ñu ñibbisi ba toog ba seetaanaat seen bopp nit da ngay diiñ du ngeen ma lu xew balaa ñuy xam li ñu def erreur la waaw mooy ma dem ci abasio bi am samedi ñoom bañ seetaan ko ci télé bi ci la ñuy xam ne li def erreur la parce que image yi am naa ko man ku ma safar rek. <laughs> te bi damay ragal gars yi def ko salañ ci de. ak tiktok yooyu. te bu ñu ñëwee fii waxuma la sax ay wax wax waxuma la sax for mais koo ci jox. fecc <laughs> mu bees foral wala fecc mu moo génn nee na. moo ko wax ki maye. ni milliardaire. ko nga jaay sa <laughs> <laughs> yaa ngi xool lu a moo gis sama xarit la rek. bu baax la doo doo kii wax Aba kii nii lu xew ne ba léegi xamul li xew. woon na laaj Kumba xam nga tamit. non non bi tëdd nelaw ba ba ba. waaw ko. dañu waaj ngóob ab ngóob. àjjuma euh, samedi ji di ñëw ñoo nga jëm xel kom. waaw newoon ci préparation yi. ay Las Vegas ak ay na la ko expliqué ay ah na la ko expliqué man daal Viviane laa xam ne daal man je suis vraiment fier d'elle. Ah? da fort. Hmm. Viviane kay kenn gisu ko. waaw ah, doon na ma jaaxal na. non du fort. doon na ma jaaxal mais Viviane farul mais Viviane accepté na dem ba yegg xaw ma lan moo. fa xew a mais contrat la am. contrat la am ñu kii ko. moom moo dem li ma accepté wul mooy. li ñu wane euh, wax. temps bi ñu ko fay. ba mu dem loolu c'était pas professionnel quand même. ku toll ni Viviane ñu ne temps lañ ko fay moo tax mu ñëw ak yooyu loolu c'était pas professionnel mais bu weesoo loolu ki yor xaalisam organisé. Hmm. nit ñi ñëw wuy si mu jël xaalisam di ko maye bu sànni ci suuf man bu dee damaa mat ma sëgg di for mais bu dee daf maa jox dinaa jël man ku ma may ma jël. Ah, mais ku ma may ma sànni. li nga sànni ci suuf man moom moo ko sànni ci suuf mel ni koy jox xar moom ko mais ki sànni il a rien fait. ñi sëgg di for ñooñu man bu may wax ñooñu laay waxal. nit dina la may xaalis di ko sànni il a rien fait te mi ngi jàkkaarloo wuy à zéro mètre. noonu la doon def waaw te waaw ah, mais jeex na nit da ngay diiñ. ku def jëf ci ñaaw jooju. kan moo def lan. ku doon sànni suuf. ki sànni xaalisam la sànni tey ku dégg li yàlla wax ci xaalis ku ko toroxal peut-être. Euh, sa affaire loolu la mais ñi foor laa wax man man ki sànni du problème bi ñi foor nga may laaj. laaj ma ñi foor wala ñemewu ma ko laaj. Viviane daal. <laughs> da nga maa ñemewul laaj ñi foor. ñan ñoo foor. waaw léegi ñi foor boo leen bëggee xam. bu samdee jox naa la rendez-vous ca cosaan. yow ma ñëw ñaari sax ñu tey ma ci buntu bi lu ma fay defati day fees bu feesee boo ñëwee mu fees amul njaay amul jóob amul juuf amul nduur da nga gis <laughs> allo présidence <laughs> présidence de la république rue présidence ci ko doon fekk la sa naka résidence rue rue présidence de la république yaa ngi ci bala la république résidence président de la république bi nga xam ne moo demeure historique su yore na quartier Dakar plateau capitale du Sénégal construit en 1902 sama ndey bale ba xaw naa yàgg de <laughs> mu nekk la résidence officielle du gouverneur général de l'Afrique occidentale AOF Léopold Sédar Senghor Diatta 1964 Abdou Diouf 82 Abdoulaye 2012 Macky Sall depuis 2012 bu ñam fi ñëwaat nu xaaroon ba xam ki woote bëgg jot président de la république kooku lay waroon fan lay woote salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam kooku. Moundé Sow na nga def. sant yàlla ba Senghor wala. Abdoulaye Wade. kan. Abdoulaye Wade ancien président du Sénégal. ah maître maître ñu ngi lay. ziar maître waaw moom la kay. na ngeen def yaa ngi ci jàmm lu waral sa woote ci biir palais ci waxtu. am Macky Sall. nag non dafa génn nag dafa génn. dafa sore. dafa génn waaw xaw na sori nag ndax dafa am réunion bu mag a mag bu mu nekk. waaw waaw monsieur Sow mën naa laaj benn affaire. waaw. moom dafa may bañ a jël wala wala wala dul toog ci palais bi. déedéet du bañ laa ma déglu ma déglu ma man maa woote déglu ma rek. waaw ma man maa woote. te su ma wootee déglu nga ne di téléphone bi rek. maa ma rek. xam nga pale bi. waaw bu dafa yaakaar ne dafa am lu ma ko fi suulal. ba tax nangu fee toog nangu fanaan. na ma wax man sama doom dong la maa ko formé ci waaw dëgg la yam ci yenn musique yoo xam ne daana ñaandu di ko def waaye te moom moom sama doom la. te misiguma ko parce que mu bëgg doo doon te pare bi. déet mais pourtant nag dafa la de fu mu ñëwee bu ma ko waxee dinaan o oh, xaaral ma rappelé ko. a ah, waaye oo oh, rappelé ma te waaye taxul mu rappelé ma. a ah, du la rappelé. ah ma rappelé fenn. wala boobu wala boobu du yor crédit. Ah, du ma ngi du yor crédit. ah xaw ma xaw ma xaw ma xaw ma ndax démb rek maa ngi ko gis. moom téléphone am muy woo Marème Faye mais def. moom moo wax loolu. ah. da ngaa gis mu def rappel moi. waaw waaw gis naa ko moom mu def rappellement. waaw moom moom caisse noire bi xanaa lu ko téye fas yéene ko noonu bu jël bu wàccee. ah. caisse noire bi mu ko jëriñ. ah xaw ma de xaw ma. xaalis xaalis ko génn mu suusulee. Ah. waaye yéen a yéen a yéen a ba nay jël jël crédit. man ma ngi formé mu ko ci lii. lan ma ko fi jar. Ah. léegi daal li may li may yóbbantu ci moom ne ko. Ah. kenn ku gis na barke de may def samay rodo ba jaay samay carte. samay waaye infiltration gi nga xamante ni. mooy am ci biir parti bi ñooñu xamuma leen yoon xam nu mu lay noonu bañ ne ci sama ah, parti déet nee nañ bi ñoo xeexante di bëgg a rayante foofu waaye dama ne man am na lu ciy luus comme am na lu ciy luus comme lan man man ma man xam naa ko da ngaa bëgg maanaam ne daal daa am ñeneen ñun jaxase indi leen foofu infiltration yi moo am ci infiltration am na ci usurpation am na ci lépp ci biir ah loolu day ñi sama militant yi ci njaayam carte donc nga am carte PDS ah, loolu dafa Ah, man de jaaxal ah, man de xeex bi de nee nañ daal say waa parti daal ñoom ñoo doon rayante ci seen biir. bu ma fa fekkoon xam nga loolu du am ndax man lépp lu ñuy def sama gannaaw laa koy defee. Hmm? dañoo bàyyi ba ma génn ñu transparente ay siège loolu maa ngi demee solo te ma ci loxoom. ah waa léegi loolu moom lu ba président lu mu jëm ci yoonu. waaw déedéet damaa xam ne su fekkee da cee bokk wala moom ñu mu ci yónnee rek na leen téye ndax man mag laa te lépp lu xam rek man xam naa ko ci suuf. ah kon da ngaa bëgg a accuser président. mais ak accuser ma ko waaye dama koy artu rek dama koy artu su fekkee dafa ñoo xam ne dama leen yónnee moom mosuma ñeme mosuma ñeme de. Hmm. moo tax saa su ne du du arrêté su may def benn mbir mu yónnee caa ne tam ñu may infiltré te loolu baaxul. ah man day maître man day wax dëgg yàlla loolu day ah est-ce que ñeme naa ko wax président loolu. ah loolu xanaa yóbbante wuñ la. ah doog te doog ko message. yóbbu numéro dama lay wax rek dama lay wax rek su fekkee ñeme woo ku ku yóbbante nga wax ko ko jógal foofu nga toog. moom minute yoo faa toog. naan ko naan président boo fa waaye dama boo fa boo fa toogee rek lekk disit moo la fa bàyyi. Ah, loolu déglu ma rek boo fa toogee boo toogee lekk disit moo la fa bàyyi. jox naa la cër loolu. amatoo fa waaye moo la woon sama diggante ak ah, man seen bàyyi laa. met. waaw léegi votre correspondant na peut-être un problème. nan ko sama yóbbante sinon du baax ci yow. wanaa la FM. Radio Futur Média. 94.